docteur Thiemoko Diop ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ah, di kontaan bu baax seen teewluwaay fii ci plateau sans filtre ma bàyyi la nga nuyoo te mbokk déglu ko ci. Euh, alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala nabil Moustapha sallallahu alayhi wa euh, ñu ngi lay fay soxna Sylvie. Hmm. Euh, fay ñu ngi kontaan aussi trop si émission bi nga xam ni invité ngeen ñu si. ñu taxawal fii euh, Codi Pharma mm-hmm. muy euh, collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique mmh. voilà euh, ki ko jiite mooy docteur Abdou Kader John mm-hmm. ñun nag ay membres actif lañ ci collectif bi macha allah collectif bi collectif bu yaatu la képp kuy jeune pharmacien mu ngi si biir ñi nekk Sénégal ñi nekk bitim réew Djibouti Mauritanie Gabon France fépp fépp fu jeune pharmacien nekk mm-hmm. mu ngi fa ñu ngi koy nuyu fas yéene taxaw ngir euh, waxal leen ñoom jeunes pharmaciens yooyu. Mm, merci beaucoup docteur euh, Saliou Diouf moom itam bokk na ci boobule collectif mi ngi fi toog euh, ñu kontaan lool sa teewluwaay yow itam docteur ñu bàyyi la nga nuyoon te mbokku déglukat yi. alhamdulilah soxna soxna Sylvie ñu ngi bëgg bu baax ci teew fi waxtaane njëriñu askan bi <coughs> waxtaane wér-gu-yaram parce que jàpp naa ne wér-gu-yaram moom mooy li jiitu li nga xamante ne doomu aadama daf koy soxla mm-hmm. kon ñu teewal fi comme ni ko docteur Thiam ko waxee le collectif pour la défense des intérêts de la mu boole ay ndaw ñoo xamante ne ay pharmacien la ñoom ñëpp jàng ba am seen lijaasa am ay jafe-jafe pour mën a mën a taxawal ngir mën a jëriñ seen réew. Mhm. ñu ngi leen jërëm merci beaucoup ci jafe-jafe yooyu daal lañuy ñuy ubbee waxtaan wi euh, lan mooy jafe-jafe bi nga xam ne jeune pharmacien yi ñu ngi koy jànkoonteel jamono ji d' accord soxna Sylvie euh, nga may ma balaa may euh, tontu question boobu ma ñëw ci lan moo jur Codifarma. Mhm. parce que codi Codifarma li ko jur juste moom mooy yëg. métit bi nga xam ni moom la ay jeunes nekkee te amuñu fenn fuñ ko jooyee euh, nekk ay jeunes yoo xam ni yu tasaaroo lañ si biir dëkk bi nekk ay boroom xam-xam ñoo xam ni kenn ku si nekk boo gisee profilam di nga yéemu ndax euh, non seulement bac plus six minimum la mais bac scientifique la mais aussi presque ñoom ñëpp sax bi ñuy def bac ay mention la ñuy am mm-hmm. cumul matière scientifique yi bul xam ñaata la ñuy am ñëw dugg faculté de médecine jàng jàng jàng ba sonn ku nekk xam na jàngu pharmacie moom lépp la laal médecine la di nga xam yaramu doomu aadama nu muy fonctionner. Mhm. balaa ngaa xam garab gi fan lay jóge ak nan lañ koy defaree ak lan mooy waral jàngoro. Mhm. loolu yëpp boo ko xamee nga ñëw nag xam nan la ñuy fajee ndax faj dëgg dëgg dëgg dëgg garab la kooku nga xam ne moom moo spécialisé wu ci garab koo koy pharmacien kon pharmacien du ndaw. Mhm. su xasee ba génn ñu jox ko diplôme d'état ni ko yow kat lépp luy garab. loolu benn la ci. Mhm. waaye lépp loo xam ne jëm na ci wàllu faj ak yu mel noonu am nga ci euh, lijaasa mën nga ko xam nga ko. Mhm. ñooñu nag normalement ci dëkk yi ñu nekk waruñoo waruñu woon am jafe-jafe pour am liggéey ndax dëkk bi daf ko soxla soxla goo xam ne chaque jour ñu ngi gis ni dañoo am déficit en personnel de santé ñooñu nag ñoo am problème bi nga xam ne euh, bu ñu gis la ci loolu la collectif bi juddoo euh, collectif bi li muy laaj lu yomb la moom mooy pharmacien yi. pharmaciens yooyu nga xam ne ñoom ñooy génnee faculté de médecine nga xam ni ñetti branche ñoom ñoo ñoom la ñuy ñoom la ñuy former en en FMPO. Mhm. benn bi mooy euh, pharmacien d' industrie yi nga xam ni pour dem liggéey dans les industries pharmaceutiques la. Mhm. loolu développé wul trop Sénégal parce que mhm. comme ni ñu ko xamee amaan dëkk bu ndaw la et am na beneen muy biologiste biologiste yi mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy def analyse yi ñoom ñooy nekk ci euh, laboratoire yi et ñoom tam am nañ tuuti jafe-jafe mais euh, mën naa wax ni puisque du débat carrément. mën nañ ko bàyyi waaye ba tey am nañ jafe-jafe mais bi nga xam ni mooy officine que ce soit biologiste bi que ki def industrie ñoom ñëpp mën nañoo ñëw def officine hmm. te officine après formation pharmacie moom mooy li gën a accessible pour pharmacien bi ñëw dugg fa te li si yéeme mooy bu fekkoon ni dafa xat ñu mën a wax waaye dafa nekk loo xam dafa ni yàmbalang te liy prouvé loolu mooy fan yi yëpp dégg ngeen coowal garab yi nga xam ni baaxuñu yuy dugg si dëkk bi toll ci faux médicament yi merci hmm. toll ci ay milliards yu bari lu tax faux médicaments yooyu di dugg si parce que gis nañ ni am na gab bu nekk ci dëkk bi boo xam ni vraiment ñun suñu dugalee suñuy faux médicaments dinañ ko jaay léegi gab boobu yëpp ay pharmaciens ñoo fa waroon nekk saytu yan garab ñoo war a dugg saytu li nga xam ne moom mooy santé population bi ngir mën leen a jàppale ci loolu donc loolu mooy euh, problème bi loolu mooy li nga xam ne moo jur Codifarma pare pour xeex ngir pharmacien yooyu daal di am insertion insertion boo xam ne ce sera à d' accord kon nga ñëw euh, ci euh, voilà ci laaj bi. Euh, jafe-jafe yi ngeen di dund yéen en tant que jeune pharmacien. naam gannaaw ngeen décroché seen diplôme. d' accord jafe-jafe yi donc dafay toftalu ci li ma mujjee wax mooy bu ñu génnee officine mooy li gën a accessible donc am na ñoo xam ne dañuy bëgg. officine maanaam nga liggéey ci benn pharmacie déedéet mooy mooy yow sa bopp nga daal di dem installé wu. nga installé ubbi pharmacie. d' accord loolu mooy benn. beneen bi moom mooy nga ñëw liggéeyal benn pharmacien boo xam ne il est déjà installé loolu moom mooy ñaar mhm. mais yooyu yëpp dafa am problème problème bi si njëkk moom mooy am na si ñu bëri ñoo xam ni bu ñu paree bëgg ñoo dem ubbi ji pharmacie su doon seen sago dinañ liggéey tuuti mais bu fekkoon ni condition yi nga xam ne moom ngay liggéeyee si biir pharmacie jaar na yoon maanaam ci liñ lay fay dëppoon ak sa diplôme si li ñu lay fay dëppoo na ak temps bi nga xam ne moom ngay liggéey si li ñu lay fay dëppoo ak responsabilité yi nga xam ne moom ngay moom ngay yenu parce que pharmacien loolu métier la bu diis. Mhm. nit ki da koy jox loo xam daf koy naan te garab ñëpp xam nañ ni tudd tooke la. Mhm. posologie bi moom mooy euh, euh, quantité bi muy toll rek moom mooy différencier mu nekk tooke wala mu bañ a nekk tooke garab boo fi gis mën naa mën naa mën naa yóbbu nit foo xam ne kenn xamul fan la donc su la neexee nga dem nekk assistant ci benn pharmacie. Mhm. waaye nga xam ne noonu la assistant yi di dundee na trop. donc loolu benn la traitement yi nga xam ne moom la ñuy daj ci biir officine yi métti na bi nga xamee ni loolu am na nag ñoom ñooñu daal di gis ni ñi nga xam ne ñoom ñooñuy liggéeyloo ñu nag ñoom benn lañ diplôme lañ am ñun ñu am diplôme am nañu ñun aussi possibilité wu dem tijji ji te am nañ ci droit léegi nga ñëw pour tijji que ce soit loolu moom moo la motiver nga tijji wala sax yow dangaa ñëw rek bëgg a dem tijji ji parce que entreprise pharmacien c'est un entrepreneur dafay créer entreprise créer ay emploi léegi yow nga ñëw bëgg a installé wu installation bi nekkul nu nekk lay demee mais dafa am lu nga xam ne moo ko régir mooy ay loi mhm. euh, ci loolu loi yi bëri nañ am na loi bu njëkkoon mais loi bi nga xam ne moo ko abrogé mooy loi décret euh, euh, décret 2007 bi nga xam ne moom mooy décret bi nga xam ne moom moo régir ouverture décret numéro 2007 1457 du 3 décembre 2007 mhm, mhm, maître Abdoulaye Wade moom moo ko moo ci temps la woon lan la wax moom mooy 5000 habitants bu nekk benn officine mën na faa nekk benn pharmacie benn pharmacie mm-hmm. mën na faa nekk loolu benn la ñaareel ba moom mooy aussi pharmacien bi am na droit dem def prospection am xool ni fii laa bëgg a liggéey gis naa ni fii soxla nañ ko fii de dëppoo na ak man ci nangam ak nangam ak nangam parce que entrepreneur la mm-hmm. mu ni fii laa bëgg a ñëw ubbi fi sama pharmacie te 5000 habitants bu nekk war na am benn officine mm-hmm. léegi ci loolu au lieu ñu defee ko noonu waaye nag ministère de la santé daal di créer li nga xam ne moom mooy benn commission d'étude des dossiers commission boobu ñoom ñooy ñëw toog daal di wax ni fii ak fii ak fii ci biir Sénégal la pharmacie mën a tiddi ren mhm. léegi nag yéen kaay leen ngeen compétir ngeen ngeen ngeen ngeen ubbi seen i pharmacie compétition bi sax bu fekkoon ni noonu lay demee ñu mën a wax waaye compétition bu doy waar la ban compétition la mooy dañ première bi nga xam ne moo seen compétition boobu moom mooy dañ naan la moom mooy lan moom mooy docteur Saliou Diouf moo ma magee benn at bu ñëwee déposé ma déposé moo xam moo ma njëkk déposé wala ma njëkk ko déposé si benn même site moom moo koy gagné dans tous les koy jox loolu c'est un problème loolu da ngay gis day discriminer kon donc bépp site bu baax jeune moom doo ko doo ko doo mënoo koo mënoo ko gagné mm-hmm. bépp site boo xam ni leer na la ni am na benn koo xam ni ancien la ku fa dem ku fa dem yow mënoo faa mm-hmm. dem donc loolu mu ngi ñu ngi pousse jeunes yi léegi loolu lu mu waral mooy da nga gis ay anciens yoo xam ne siposon ñu ngi nekk ci ay liggéey yeneen bu ñu gisee sit yi daal di génn rek. Mhm. bu leen ñëw postuler. bu ñu postuler yow jeune bi nga yaa ngi doog génn amagoo dara defagoo dara bëgg nga dem ubbi officine liggéey bu ko def boo ñëwee moom mu daal lay baare léegi loolu dafa dem ba waral benn blocage ci biir secteur bi. Mhm. am na ay secteurs yu bari instant bi li tax bokk na ci bokk na ci problème yi mooy bëri na ñoo xam dañ leen joxoon ay sites ñu war ko tijji tijjiwuñ ko. pourquoi parce que ñu ngi ci leneen ba pare seen tànk ci mhm. bu ko defee loolu vraiment nekk na problème. jeunes yi duñu mën a am accès ci boobu. déedéet mënuñu am accès si site boobu mënuñu am accès si fépp foo xam ni jege na ko ndax il faut que état bi xam sa ki nga xam ne moo déposé fan la am site bi ba pare. fan la mhm. bu ko defee bu ko xamee ñu xool ko selon euh, plan cadastral yi et daal di doog a mën a amalaat yeneen yeneen yeneen dossier te loolu yëpp dafa waroo ak li nga xam mooy décret 2007 décret 2007 li mu wax yomb na 5000 habitants bu nekk benn officine pharmacien bi fu ko neex xool su dëppoo ak yoon dëppoo ak 5000 habitants yooyu mhm, mhm, dëppoo ak benn distance aussi boo nañ ko jox pharmacie mu tijji ko euh, damay ñëw ci docteur Saliou Diouf euh, wax nga sànq ci biir officine yi Euh, quelques jafe-jafe mais bëggoon naa xam itam lan moo tax peut-être xaw ma ndax peut-être lañ leen di fay ci biir office di moo baaxul ba tax euh, pharmaciens yu bëri tey de jeunes pharmaciens ñi ñu ngi Djibouti ñi ñu ngi Congo ñi ñu ngi Mauritanie. effectivement effectivement <coughs> parce que problème bi lu yaatu la comme ni ko docteur ci mu ko waxee tey jii dañoo am jafe-jafe pour exercer tey profession bi parce que tey jii comme ni mu ko waxee étude longue ngay def étude yu gudd gudd ngay def formation la boo xamante ni boo paree da ngay opérationnel. léegi la preuve jour bi nga xam ne da ngay sa serment pour thèse pare nga cest nga dem. directement vous êtes directement opérationnel. Okay. parce que booy booy prêter serment d'ailleurs même phrase bi ngay njëkk a prononcé moom mooy maa ngi waat ne d'exercer profession. Mm -hmm. de la santé publique. Mhm. kon kooku c'est un agent de santé assermenté boo xamante ne formé nañu ko pare. léegi lan moo des mooy mu tax mu taxawal taxawal li nga xamante ne mooy entreprise am soit bëri na ay possibilités ñi nga xam ñoo nekk biologie ay laboratoire ñu yombal leen taxawaayu Sénégal mais secteur bi nga xam moom moo ëpp moom moo ëpp li mu mën a li mu mën a absorber aujourd'hui ci en terme de création d'emploi moom mooy officine mm-hmm. mais nit ñi mënuñoo am accès à l'exercice de la profession sur deux niveaux yu mu wax moom mooy soit assistanat bi mooy nga nekk assistant pour nga gagner expérience mën a aussi xam nan ngay mën a gérer ëllëg boo amee sa pharmacie mais assistanat boobu c'est-à-dire amul régulation c'est-à-dire tey jii beaucoup de jeunes pharmaciens exercent ñu ngi liggéey ci ay officines amuñu ay contrat ay stagiaires la ñuy doon am. non duñu nekk nekk stagiaire mais dañuy def ay ay ay kii la am ay contrat de prestation ñeen ñi duñu am contrat. salaire ba baaxul. très bien léegi soit loolu deux possible ñaari mbir mooy conséquence bu njëkk moom mooy ñeen ñi dañuy obligé décourager parce que dañuy gis ne jaru ko ñeen ñi bu ñu amee possibilité exilé vers dem Mauritanie qu'est-ce que la Mauritanie amuñu nous n'avons rien contre la Mauritanie mais lan la Mauritanie am loo xam ne Sénégal war koo mën a en terme de besoin de mhm. mën fay ay agents de santé loo xamante ne yittewoo yeyoo nañ ko. Mhm. léegi kon ñu jógewaat foofu léegi mënoo assistant c'est difficile pour nga nekk ko cest à yi conditions yi baaxul. Mm-hmm. les assistants la plupart des gens travaillent dans des conditions kii ne respectent pas le code du travail minimum dans une insécurité totale vous imaginez léegi ñenn ñi bu fekkente ne gis nañ ne léegi assistant bi c'est difficile léegi dañoo bëgg a dem tijji ci pharmacie bi un décret est là nekk en vigueur wax ne 5000 habitants fu mu am benn pharmacie dafa war am décret boobu appliqué wuñ ko. plus mm-hmm. léegi loolu noonu dégâts collatéraux yi comme ni ñu ko doon waxee léegi àgg na ci population yi. parce que dafa am benn gab bu loolu jur moom mooy ay personnel de santé ñu ngi fi bien formé toog di xaar mënuñoo mënuñoo exercer seen seen seen seen seen seen kii quoi seen profession. d' accord euh, d' accord naa ci loolu ci yow mais euh, yow docteur euh, Thiemokho. Mhm. nee nga tout à l'heure officine moom mooy bi nga xam ne moom mooy recruter le plus. effectivement si ngeen gën a mën a gis seen bopp. te pourtant jafe-jafe foofu la ñu gën a bëri léegi lu tax euh, y' a pas plus de pharmaciens yu dem industrie ak biologiste. d' ñi nga xam ne ñu ngi ci création médicament et tout mais fii ñun Sénégal pharmaciens yëpp dañuy bëgg a ubbi. Mhm. mu mel ni ay boutiquier daal ci dëkk bi. d' accord pourquoi pas doo leen def bi accord euh, Sylvie laaj bu am solo nga laaj te damay kontaan trop ngir tontu si mais balaa ma siy tontu damay leeral benn mbir mhm. mooy il faut ñu xam ni Sénégal li mu war a am d' abord ci pharmacie ci officine jegeegu ko sax ba koy am pharmacien de pharmacien d' officine jegeegu ko Euh, certains nous parlent de saturation jege wuñu saturation loolu dafa war a leer si bopp ñëpp pharmacie bariwuñu ndax yaa ngi gis par ngoon boo rombee di ñibbi fu nekk pharmacie yaa ngi gis këy wala doo gis këy da ngay gis am pagaille les gens font font la queue pour jënd garab mais que yooyu xam nga fu mu gën a graawee devant les hôpitaux nga xam ni y'a y'a des urgences maladie bi mu ngi soxlo euh, euh, kit kit bi nga xam ne moom lañ ko war a defal amul ci biir hôpital pharmacie mu génn ci biti pour jënd ko wala mu soxla ay médicaments yoo xam c'est en urgence mais day ñëw def que ci kanam hôpital bi loolu aussi c'est un autre problème bu ñu mën a wax mhm. ndax lan mooy dañu wax ne ñu ngi am mille cent et quelques je vais dire mille Sénégal bi yëpp Sénégal bi yëpp loolu c'est c'est loolu loolu c'est terrible comme comme chiffre. voilà c'est ça. 17 millions d'habitants 1126 officines soo defee rep soo defee division bi sa ça montre que vous avez 15 000 habitants par officine 15 000 habitants par officine xam nga ban problème lay jur benn. pharmacien moom mënu koo gérer moom benn mhm. pharmacie mënu ko gérer mhm. donc pharmacie bi ni mu war a doxalee liggéeyam sax du ko doxalee noonu ña fay liggéeyee tamit danañ sonn lool loolu benn la ñaareel ba moom mooy am na si population bi ñoo xam ñoom sax ñoom dañ dul am officine dañ dul am garab accès aux médicaments lañ dul am. Mhm. bu ko defee marché parallèle bi la dem pour mën fa am ay médicaments. Mhm. quatorze donc quinze mille habitants par officine moom la au moment où dëkk yu mel ni exemple des pays en développement parce que dañoo wax ne Sénégal dafa bëgg a émerger léegi damay joxe ñaari exemple pays en développement lu mel ni Algérie Algérie boo fa demee ñu ngi nekk 43 millions ñu ngi am 12 500 officines ça veut dire 3 440 habitants. par officine. Mhm. yaa ngi may dégg baax. Mhm. au au moment où Sénégal mu ngi am quinze mille habitants par. officine par officine. te nee dañoo bëgg émerger Algérie ñoom trois boo jël am nañ benn officine bu ñu mën a dem. Mhm. loolu yenn na maanaa nga jëlaat Maroc ñu ngi nekk ci trente quatre millions d' ñu ngi am dix et poussière léegi loolu soo defee division bi lu mu lay jox. Euh, habitants par officine la Maroc am c' est pays en développement nga ne ma non ces pays là c' pense kenn du wax c'est un pays en développement. Mm -hmm. mais c'est un pays développé. France ñu ngi am vingt mille cinq cent officines sur soixante sept millions d'habitants ça veut dire quoi c'est trois mille cent habitants par. officine parce que officine nit ki waru ko xoolee rek ci. pharmacien bi nga xam ne moom mooy exercer di am xaalis wala je sais no non non mais mission de santé publique bi loolu mooy li ñuy njëkk xool ndax yoon la quinze mille personnes di buuboo pour dem ci benn officine ndax loolu yoon la kooku dafa mën a gérer loolu yëpp mais population bi c'est-à-dire dañoo war a am accès non seulement aux médicaments mais accès à un personnel de santé bu mel ni pharmacien mu mën la conseil ci lépp loola dal à tout moment. Mm-hmm. mën la orienter su ko mënee prendre en charge mu prendre ko en charge su ko mënul mu orienter la ni la fii yëpp fii ak fii ngay dem parce que pharmacien loolu moom mooy rôle am moom mooy ki nga xam ni euh, euh, nu ñu koy waxee patient bi wala population bi ci moom lay njëkk a dal mu orienter ko. su dee lu mu mën a soulager la mu soulager ko su dee loo xam ni dafa laaj mu dem euh, en urgence mun la demal fii mhm. nga dem foofu ñu defal la li ñu lay defal bind laat la garab nga ñëwaat ci moom moom mooy toppaat traitement bi mhm. moo lay wax ni nga koy naanee pendant nangami temps nga koy naanee ni nga koy jëlee su eggee fii jëlal nii garab bi dosage bi boo koy bàyyi bu ko jël rek def ko sevrage brutal il faut nangam donc mhm. xam-xam bu jaatu la kooku lu tax ñu war ko privé li nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy euh, population bi donc loolu moo waral officine nekk loo xam ne effectivement moom moo mën a engloutir gis nga ñi nekk fii yëpp jeunes yëpp tey jii suñu bëggoon dem officine officine bi du saturé je vous le dis c'est des chiffres quoi officine bi du saturé loolu benn la ñaareel ba moom mooy ñëpp bëgguñu dem officine mais souvent da génn Sénégal ñëpp xam nañ ni mel da ngay génn bëgg am foo wéeru ba mën a def leneen gis nañ ko fi ñoo xam dañuy ñëw bi officine pendant cinq ans mais ñu jaay ko daal di dem ci leneen mais officine bi day nekk benn jaar-jaar parce que moom mooy li nga xam boo génnee c'est opérationnel mën nga ko def euh, c'est c'est mën nga ko voilà boo demee nga exercer pendant benn temps fekk si diggante bi fay nga say master yoo bëgg a def après nga dem defi leneen loolu ñaar la ñetteel ba moom mooy officines yi suñ bariwul lan la ñuy créer ay industrie industrie suñ ñëwee mais mënuñoo jaay tuuti officines yooyu mais officine lu ñu gën a bari industrie yi gën a bari mais employé di gën a bari ñi di ko gën a boobaa industrie buy ñëw di fi taxaw dafay rentable. Mm-hmm. ñaareel ba industrie bu ñëwee taxaw aussi dinañ mën a def politique boo xam ni sous région bee comme ni ko marocain yi di defee et di fi dugal garab ñun tam ñu def noonu mais bu ñu xatalee yëf rek problème dafay am affaire bi xatul yaatu na il faut que ñu yaatal ko ñëpp xaj si sànq docteur Saliou mu ngi koy wax ñi dem Mauritanie mais mën nañ toog Sénégal population bii nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñoom ñoo jël seen i impôt ak seen i taxe di fay seen jàng pendant des des vingtaine d'années ba ñu ñëw nekk li ñu nekk kenn mu see fay dara boo ñëwee war leen a jëriñ te ñoom soxla nañ la. Mm. yow nga génn jaar di jaar si frontière yi dem Mauritanie. ñii dem Djibouti <laughs> ñii dem euh, euh, euh, Gabon. sama benn xarit bu nekk docteur Fadel Keïda ma koy nuyuwaale moom ñoom Morsila et tout daf may wax ni bi mu ñëwee Mauritanie la doo a xam ni moom borom xam-xam la ndax traitement bu am solo bi ñu koy def. <laughs> wallaahi mais fii Sénégal vraiment c' autre chose. Mm. donc officine effectivement mën na réaliser. doy na waar xaaral euh, peut-être am na docteur Saliou am na lu mu ci yokk. balaa nga jël kàddu léegi parce que li ma ci a sànni rek moom mooy par rapport ak chiffres yi mu wax. chiffres yi lan lay wane chiffres li muy wane moom mooy pharmacie nekkul dafa am aspect entreprise am aspect un lieu de santé un établissement de santé. Mm-hmm. boo xamante ne c'est-à-dire au-delà de l'aspect création d'emploi nga xam dinañ ci ñëw ci kanam. Mm-hmm. mais service de santé bi nga xam au bon endroit mais aussi si jamono bi ñu ko soxlaa c'est-à-dire que yi mu joxe nii dafa joxe benn gap dafa am benn gap boo xam ne dafa ko génnee. Mhm. c'est-à-dire gap bi moom mooy que tey jii parce que 15000 si nous sommes aujourd'hui à 15000 habitants pour benn pharmacie loolu ñaari kii ñoo ci génne ñaari jàngat bu njëkk moom mooy am na pharmacie yoo xamante ne débordé nañ c'est-à-dire ngi jël nombre boo xam ne ëpp na leen doole donc le service de santé n'est pas bien fait nit ñaa ne nit ñi dañuy rang. Mhm. pour mën a jënd garab. foofu explication yu leer ci posologie mën na faa bañ a am mhm. yenn effet secondaire yi mën nañ la ko mën a expliquer mu leer ay erreur médicamenteuses sax mën na faa am comme ni ñu koy gisee mhm. léegi loolu mooy première kii bi mm, jàngat bi dégagé ci quinze mille habitants yi mooy insuffisance de d'officines yi mais deuxième jàngat moom mooy am na population yoo xamante ne ci quinze mille habitants yi gisuñu sax pharmacie parce que gap bi ñuy wax ni yenn zone yi ñuy wax nouvelle habitation yi nga xam tey jii dañoo am dañoo am soxla tey jii pour ay médicaments kon boo génnee Dakar kon dem dans les zones les plus reculées foofu mhm. kon parce que boo xoolee yàggul dara y a quelques jours les sœurs association les toutes les sœurs de de Sénégal ñoom ñoo booloo wax ne ñoom tey jii dañoo am jafe-jafe pour mën a am ay médicaments. kon tey jii le déficit non seulement dafa national. Mhm. mais tey jii population bi ñoo ko njëkk a santé parce que la pharm la pharmacie comme ni ñu ko waxee est un kii c'est un service de santé publique. au delà de l' comme ni ñuy wax entreprise mais. maam mm, wér-gu-yaramu askan bi moom moo nekk enjeu. d'accord merci am na solo Modou Fall. waaw sa jàngat euh, li ma ci jàngat njëkk mooy euh, Sénégal ndaw bi fi gën a sonn mooy ndaw bi am métier te amul branlon ndaw boobu moom ñaare day day bari ay jafe-jafe day bari ay difficulté euh, beneen bi tamit Sénégal dinañu xëccoo njaayum garab waaye du ñu xëccoo defar bi hmm. xëccoo defar garab gi doo ko fi dégg mukk hmm. njaay mi rek la ñuy xëccoo. maa ko war a jaay ak yaa ko war a jaay lu tax nga jaay ko fi nga koy jaayee du foofu yooyu ñaar dañ koy xëccoo ba muy indi ay problèmes yu bare bare beneen bi ci des tamit mooy euh, Sénégal continuer di jox mag mu retraité salaire mooy gën a yomb fekk ndaw lu am vingt ans vingt cinq ans nga commencé ko jox salaire pour mu jëm soixante ans ñett yooyu yëpp lu lu doy doy waar la ci biir réew mi. Mm-hmm. Euh, li ñuy wax ni dama ci xam tuuti ndax dama ci xam ay jeunes pharmaciens yu baree bari yoo xam ne daw nañu dem Maroc. ñenn ñi Mauritanie et cetera wax nañ ko léegi maa ngi nuyu docteur Thiaw moom demul fenn mi ngi toog yor pharmacien am <laughs> di suma xarit Sylvie mhm. euh, problème bi dëgg mooy ñoom souligné nañ ko muy euh, fu juróomi junni nit daje yu ci nekk pharmacie war na fa am fu foo xamante ni si juróomi junni nit dañ fay daje pharmacie dafa war a am ñoom ñu dem ba souligné ni Sénégal ni muy doxee mooy fu 15 personnes di fu fu quinze mille personnes nekk fukki junni nit ak juróom benn pharmacie moo fay nekk maanaam fu ñetti pharmacie war a nekk benn pharmacie moo fay nekk loolu moom bu ko waxoon nit ñun sax nga xam ne defuñu métier mi xam nañ ko ndax pharmacie yi chaque jour yaa ngi romb muy xat nit ñi di ko ran rawatina euh, jamonoy couvre-feu bi rawatina ci biir koor gi. Mm-hmm. daaw bi mu tombee koor gi ñu def couvre-feu vingt et une nit ñëpp fatu dix-huit heures boo ma saa ñëw ci pharmacie da ngay jàpp ne marché la wax na ko sànq ndax docteur bi expliqué clairement dina am temps boobu ak bénéfice bi muy séntu ci ñi ci ginnaaw ndax garab bi lay jox mënuñu ko jaawale ndax trois personnes quatre personnes yi nekk ci biir pharmacie bi rek dinañu mën a gérer mbooloo mi ñëpp et cetera muy ay problème yu bëree bëree bëri bari na nit ñuy faatu ci pharmacie yi nañuy nañuy faatoo seen bakkan ci farmasi yi lay des maa ko wax bari na nit ñuy faatu seen bakkan ci farmasi yi lay des docteur bi reyu leen ci ki leen bindal ordonnance bi reyu leen yàlla ci moom la jaar dëgg la waaye yàlla reyu leen ndax sabab la mhm. pharmacie bi moo leen rey pharmacie yu bari ñu ngi gàddu ay ay bakkan euh, boo ñëwee explication bi du doy jaawale garab bi dafay bari euh, en même temps léeg-léeg ñu jël ñoo xam ne sax defuñu métier mi léeg dañuy jël ñoo xamante ni si defuñu métier mi sa coro lay doon ibbi nga pharmacie am nga gel bëgg nga ko waaw maa koy wax yéen du ngeen ko ñemee wax man mi maa koy wax ibbi nga pharmacie am nga gel jël nga ko dugal ko ci biir pharmacie bi muy jaay nga expliqué ko lii nangam lay jar lii nangam bu nit ñëwee nangam na dem fee ci gise bi et cetera. Mhm. ibbi nga pharmacien sa goro maanaam sa magu sa magu gel mhm. amut ci lum jàpp nga jël ko dugal ko ci pharmacie bi. ibbi nga pharmacien sa jarbaatu gel amut ci lum jàpp et cetera voilà yaa ma gën a xam Sénégal mi doxee. Mhm. beneen bi ci des muy lu grave lu ñu wax muy dañuy wax ni site bii mën na nekk pharmacie ah. kenn ku ci nekk am nga droit indi say papier ne man kat ah, bëgg naa jot ci site bi pour ibbi fi pharmacie Sylvie ñëw ñoo ne Sylvie kat jeune la dëgg la métier mi lim laaj lépp mi ngi ci moom waaye Modou Fall moo ko magee benn at Modou Fall lañ ko jox pourtant Modou Fall mi mi ko jël si am na pharmacie dakaar am ko Touba am ko Kaolack am ko Tamba et cetera ba pare ñëw gis site bi nga xamante ni si xam na ni bis bu ko Sylvie jëlee dina yàqal dina ko yàqal beneen pharmacien bu nekk ci côté bi ndax Sylvie li muy def moo gën a efficace mu jël ko teg ci tànkam xam nga nu mujjee jaay caabi ndax xam nga jaay caabi jël caabi bi jaay ko beneen nit 10 millions jël caabi bi jaay ko beneen nit 5 millions jël caabi bi jaay ko beneen nit 3 millions 500 et cetera léegi nag tant que ñu ngi ci ci logique boobu kañ la ndaw ñi di am ci lu ñu jàpp tant que ñu ngi ci logique boobu kañ la ndaw ñi di liggéey tant que ñu ngi ci logique boobu ndaw ñi nga xam ne dañu sonn ci seen life sonn ci seenum njàng sonn ci seen àdduna ba ba jàpp ni fi mu toll dañu war a toll ci satisfaire askan wi mag ñooñu ñëw di leen ko yàqal mag ñooñu nga xam ne dem nañu retraite ba pare egg nañ ci yàllaay buur mhm. fekk place boo xamante ni sii ndaw ñi mën nañ fa ibbi pharmacie fekk place boo xamante ni sii ndaw ñi soxla nañ ko fekk place boo xam ne population bi yittewoo nañu lool lool ku lañ fa ibbil pharmacie mag ñëw teg ci loxoom mu dem at ñaari at ñetti at mu jaay caabi ji ay millions mu doon problème sérieux loolu nag Abdoulaye Diouf Sarr laay joxoñ baaraamu tuuma directement duma ci jàdd ci Jean wala ci Paul Abdoulaye Diouf Sarr mooy ministre de la santé yàgg na ci bitti doog a fatu su ma nee yàgg na ci bitti doog a fatu mooy xam na li xew ci bitti mhm. muy njuuj njaajee tappale yi ndax dund na lu tàng dund lu sedd mhm. yàgg na ci bitti def na marchand ambulant et cetera jaar na université jaar na fu ci nekk kon xam na tappale yi am ci nit ñi mhm. kon bu nit jëlee caabi gañe marché téye ko xam na ndax ma nga fa chargé marchandise wala da koy xaar ëllëg mu mën ko jaay keneen beneen bi nga xam ne fi lay daanele mooy ñoom pharmacie it doo dégg mukk ñuy xëccoo place euh, Déni Biram Ndaw wala Màkka Kulibanta wala Mbësin wala Paal wala Xelkom déedéet dakaar la ñuy xëccoo place Mbuur la ñuy xëccoo place Thiès la ñuy xëccoo place Touba la ñuy xëccoo place Kaolack la ñuy xëccoo place Ndar nañuy ñuy xëccoo place pourtant dëkk yi ma lim ña fa nekk dañuy feebar dëkk yi ma lim ña fa nekk dañuy soxla pharmacie dëkk yi ma lim ña fa nekk dañuy jënd garab. dëkk yi ma ña fa nekk ay citoyen lañ dëkk yi ma ña fa nekk dañu leen war a taxaw utal leen ay pharmacie yu efficace yoo xamante ni si ku ci tawat mën a dem ci pharmacie yooyu jënd ay garab yu baax mën a faju am si wér-gu-yaram kon yéen tamit xëccoo bi ci biir taax yi doy na dem leen ci àll bi nag ndax waa àll bi soxla nañ leen ba ci kanam ma del si naam euh, Modou mhm. moodu Fall macha allah Modou Fall wax na am solo vraiment mhm. relaté na ay faits yoo xam ni kenn mënu koo dindi mhm. Euh, lu dul rek pharmacie secteur pharmacie dafa xaw a ésotérique maanaam léppam leerul ci public bi. Mhm. moo tax am na si yu mu wax yoo xam ni dinaa si indi tuuti éclaircissement mhm. euh, comme pharmacien fii Sénégal alhamdulilah lu mu euh, lu ñu ngi am lu ñuy xeex nag parce que am na loo xam ne baaxut sérieusement ñu war koo defar ñun looloo tax ñu jug pour xeex te xeex su amee rek après solution day am. Mhm. waaye lépp bonut itam maanaam Sénégal administration administration bu mucc ayib boo xam ne exemple Mauritanie tey OMS ñoo leen contraindre pour ñu jël ay pharmaciens parce que mënatuñ dara ci ñi nga xam ne dañuy am pharmacie te duñ pharmacien OMS mënul si loolu dara Mauritanie ñi fa moom pharmacie duñ ay pharmacien mais OMS dafa mujj ni leen léegi foog ngeen jël ay pharmacien moom mbaa ma tëj pharmacie bu ko defee si lañ ñëw Sénégal pharmaciens yi daal di dem. di dem mais Sénégal melul noonu mucc na ci loolu. Sénégal dëkk la boo xam ne vraiment pharmacien képp moo mën a am pharmacie moo mën am officine muy benn. ñaareel bi aussi mooy pharmacien amul possibilité am ñaari pharmacie loolu su amee it mosuma ko gis te yaakaaruma ni am na. ku nekk benn pharmacie benn pharmacie rek rek rek la pharmacien mën a am munul am ñaar. loolu benn la donte ne nag caabi jooju muy wax ak ni ñu koy waxee dëgg la parce que fan yi passé dégg naa benn vente officine boo xam ne waa ji dafa ne daf koy jaayee temps nit yi commencé ñëw mu yokk prix bi presque double bi donc caabi ji day ñëw. Mm-hmm. moo tax ministère de la santé si décret 2007 bi moo tax ñu wax la ni la appliqué wuñ ko décret 2007 bi ni ñuy installé officine ni ñu koy jaayee ak koy transféré yëpp daf see leer naññ mais problème bi mooy dañ ko appliqué wul. te Corifarm xeexam bi gën a mag nii nii mooy l' application sans délai et immédiatement de ce décret de 2007 yaa ngi comprendre donc caabi jooju loolu moo ko waral euh, beneen mbir mi moom mooy pharmacie aussi comme li mu wax sànq euh, si wàllu euh, pharmacie pharmacie bi moo leen rey bon li mu wax xam naa ko parce que da ngay gis souvent cas yu mel noonu vraiment dañ koy nangu waaye pharmacien bi nga xam ne moom moo installé wu moom il n'est pas responsable de li xew si dëkk bi yëpp. moom li mu am responsabilité mooy pharmacien mais bu fekkee ni moom dafa nekk ci pharmacie bi nombre de personnes yu ëpp yi mu waroon a jël di ñëw te moom mu nekk fa rek ngir assurer santé publique loolu la war a def defe naa koy jéem rek état nag à côté moom moo war a xam ni vraiment bari na vraiment mbir mi kat doy na waar il faut que ma dolli. Mhm. parce que dafa mel Dakar Plateau boo fa demee gis nga pharmacie ni ñu parce que population bi dafa dense. Mhm. bu nekk benn officine boo ñëwee si biir Dakar. nii budul plateau hors de plateau c'est 300 mètres nga dem ci àll bi c'est 400 mètres donc état moo war a régler loolu. léegi aussi bu fekkee ni mooy 15000 sànq bi ñu la doon 15000 habitants par officine vraiment il faut que pharmacien bi day buuree wax docteur Sali wax na ko mais pharmacien ku ko xam-xam ni dafa am déontologie dafa am lu ñu tuddee déontologie pharmaceutique loolu pharmacien yépp ñoo ko am garab. médecin dala koy bindal pharmacien corriger ko. Mhm. parce que moom moo am. pharmacien moo war a joxe. mais bien sûr moom que pharmacie sax du jaay du du du du xaw ma nu ñu koy waxee. mais day délivrer du def vente day délivrer. am na droit xool ordonnance ni la non non non ñaar yi kenn du ko boole ñaar yi kenn du ko boole posologie bi kenn du ko naane woo médecin bi lii nga joxe du ma ko joxe lee laay joxe loolu dañ koy def toujours mais le problème en est que bu dee pharmacie dafa nekk en sous effectif mais problème bi foofu la léegi ndax nekk bi mu nekk en sous effectif moom la wala kii bi la ñun nag si loolu lañu jug pour xeex pharmacien wax dëgg yàlla rayul kenn médecin rayul kenn waaye nag système bi ni muy doxee mooy problème bi moo tax ñun loolu moo tax ñu jug pour xeex mooy ñaareel mbir bi ñetteel bi moom mooy àll bi nga xam ni wax nga ko pour installer wu ji fa yàlla seede na ni ñii ñi ñu ngi installé wu ji si àll bi gis nga problème bi mooy ba tey application wu décret bi moo des. voilà parce que décret 2007 bi biñ ko jëlee njàmbaas si commission boobu nga xam ne ñoom ñooy jël xool fu leen neex ñu kii fa commission bi si seen biir bureau la ñuy toog daa di xool benn dëkk rek ci kii bi daal ni waaw fii acca nañ fi leer na leen ni c'est pas yow mu ne leen site bi c'est pas nga wax nit ki na fa dem nit ki su demee xool gis ni fii dundut bi passé exemple en 2018 quatre-vingt et quelques sites lañ génne. 60 sites ñoo viable yeneen yi viable kenn mënu faa def pharmacie yenn saa itam ñu defal la nombre d'habitants. Mhm. boo xam ni dañuy jël benn dëkk. ni la nombre d'habitants bi lii la fekk beneen dëkk beeg yeneen dëkk yi mu dendal lañ ci boole waaye te yooyu am na pharmacie bu leen gën a jege. foofu boo fa tijjee itam da mais bu ñu bàyyi woon ku nekk xool fi ko fi ko neex te mu dëppoo ak yoon mu tijji fa am na ñoo xam seen dëkk la ñuy dellu am ñoo xam dakaar neexu leen man mii di wax man bugguma dakaar coow léegi yooyu am naa projet yoo xam ne ay élevage ak yeneen ak yeneen docteur Kader mi nga xam moo jiite Codifam dëkkul Dakar donc problème bi yëpp lan la moom mooy ñàkk a appliqué décret 2007 bi loolu moo nekk problème bi suñ ko defoon problème bi même saturation boobu ñuy wax buñ defoon bàyyi woon ku nekk déposé fu ko neex mais bu yàggee des na tuuti c'est-à-dire il blocage blocage du am kii day dem tijji fee kii tijji fële kii tijji fee kii tijji fee on est en on est au vingtième siècle sérieusement donc ñett yooyu laa amoon comme euh, lu ma si apporté. waaw waaw bon yaakaar naa docteur na li nga xamante ne mooy par rapport intervention wu sëñ kii bi. sëñ Modou Fall macha allah am na solo bu baax baax def naa ne autorité bu la déggee moom dañu war a gën a agir mu gaaw quoi. léegi nag comme ni ko Simbako waxee bon pharmacien est un personnel de santé assermenté koo xamante ni li muy def xam na ko maîtriser na ko. léegi nag parfois bu ñu dee wax ci erreur médicamenteuse dafay am juste ñaari angle moom mooy l'erreur est humaine comme loolu comme ni mu amee ci secteur yëpp mooy 100 pour cent amul quoi ay quelques erreurs dina am loolu benn mbir la mais le notre système de santé de manière générale cest dire eh, am na niveau moyen quoi par rapport ak yenn eh, eh, kii estimation internationale yi loolu mooy premier deuxième mbir moom mooy euh, parce que saturation bi mooy wàll mooy débordement bi comme li ñu wax sànq pharmacie boo xamante ne devant hôpital la nekk waroon am deux pharmacies mu am benn c'est sûr que dina am dina am débordement quoi. Mm-hmm. foo xamante aussi aussi 5000 habitants la war a gérer mu gérer deux fois plus ou trois plus c'est normal que service de santé bi mën na am lu des léegi nag foofu nag lañ soxlaa autorités yi pour que parce que comme ni nga ko waxee léegi par rapport ak Mauritanie ak yeneen dëkk même bon seeni étudiants moo xam la moo xam Maroc moo xam yeneen fii la ñuy jàngee kon formation bi dafa excellente. Mm-hmm. suñu rég suñu réglementation suñu régula suñu réglementation aussi pharmaceutique très bien baax na mais léegi lan moo des formation bi baax na réglementation bi baax na nañ ko mettre en application c'est aussi simple mm-hmm. la demande est là la demande est même très forte yaa mais supérieure à l'offre parce que tey jii besoin de santé ay nit bu ñu soxlaa santé te amuñ ko nga xool stress su feebar le préjudice moral lié à une maladie nga dool ci stress su nga bëgg a am médicament mënoo ko am cest que loolu tey ji maa ngi ciy waxtaan ak koo xamante ne ministère de la santé lay liggéey juriste la mu ne ma loolu effectivement c'est préjudiciable mooy lan nit ñi ñu ngi leen di xañ seen i ñu ngi leen di lor. Mm-hmm. alors que la santé est un droit tey jii consacré par notre constitution et consacré par les le les kii accords internationaux yi nga xam Sénégal daf ko ratifié. Mm-hmm. Mm-hmm. kon tey un préjudice est là boo xamante ni yaatu na nit ñi dinañ ci loru pharmaciens yi dinañ ci loru ñëpp dinañ ci loru. moo li nga xamante moom mooy ce qu'il c'est-à-dire la législation en vigueur ñu appliquer ko. Mhm. léegi su fekkee par rapport ak préférence bi nit ñi amuñ préférence. parce que bi nga xam bi ngay prêter serment waxoo ne d'exercer à Dakar waxoo tam ne d'exercer à je ne sais pas Louga ou autre man gis naa ay jeunes pharmaciens yu bare bëri yoo xamante ne ñoom bëgguñu sax installé wu Dakar. Mhm. même si aussi ba léegi à Dakar il y a des possibilités de création. parce que parce que parce que la pharmacie est une profession mhm. que xam nga loi moo ñu tënk 5000 habitants benn pharmacie. 400 mètres à l'intérieur du Sénégal 200 mètres à Dakar Plateau 300 mètres dans les autres communes de la région de Dakar c'est simple léegi du moment où respecté nañ yooyu le besoin de santé est là donc baax na nit ñi nit ñi dinañ ko soxla la preuve décret 2007 bi pour wane que ne baax na pour wane que ne mën nañ ko appliquer bi mu waxee ne 5000 habitants pour une pharmacie dafa waxaale sax ne hmm. en deçà de 5000 s'il y a le besoin de santé mën nañoo créer. effectivement te loolu noonu moom la moom la benn autorité doon expliquer ci Dakar Plateau que ne romb nañ li nga xam ne mooy possibilité mais li tax ñu romb ko parce que le besoin de santé est là. Oui. parce que décret yi li nga xam moo nekk esprit bu décret yi moom mooy nit ñi mën a am wér-gu-yaram. c'est ndax wér gu boo ko amul doo liggéey boo liggéeyul développement du am. est kon loolu ci la ñu war a njëkk taxaw kon autorité yi tey jii ñu war a agir pour décanter la situation. mais nit ñi amuñ préférence. Mhm. Euh, yéen su ma leen déggee baax day mel ni anciens yi nga xam ne jamono jii daa mel ni ñoom ñoo di ni monopole pharmacie ñoom ñoo leen impacté ba tax yéen mënoo leen ubbil seen bopp pharmacie. Euh, Sylvie question bu xaw a naqaree répondre lay nekk sur le plateau mais dans tous les cas mën naa wax ni. bu ci anciens yi jàppee mën na gën a yomb waaye fi mu ne ah waaw dese nañ ci. jàppaguñ ci de gisaguñ ko de parce que ñun ay pharmaciens lañ ñun ay pharmaciens lañ officine euh, euh, FMPO boo fay génn duñ la wax euh, sorti xaw ma nu ñu koy waxee mais boo génnee da ngay waat ñu ni la yow tu es nangam tu es médecin maanaam fac médecine mooy faculté boo xam da ngay génn rek nga opérationnel amul ay da ngay jaaraat fële defaat concours déedéet Euh, vraiment même sax pour euh, su fekkee ni amoo contrat te contrat bi sànq wax nañ ni pour nga am ko nekk assistance c'est tout à fait difficile. Mhm. man su ma waxoon ñaata at laa liggéey te amoo contrat defe naa di ngeen di ngeen yéemu mais ay géré lañ parce que fi ñu màggee et tout dañuy dañuy kër këri rek di dem. Mhm. Euh, soo amul contrat doo. <laughs> munoo munoo munoo inscrire ordre des pharmaciens ñu reconnaître la comme un pharmacien. soo amul contrat soo amul contrat. te contrat bi yéen a ngi liggéey nii te amoo leen contrat. loolu moo si tane mais ñi liggéeyul ñoo ëpp. waaw merci surtout jigéen ñi <laughs> jigéen ñi vraiment moo tax je lance un appel au au au vraiment au aux pharmaciennes xeex bi seen xeex la ñu ñu takku parce que xam nga lu tax da ngay gis jigéen ñëw déposer fenn pour liggéey ñu ni ko noonoo jigéen nga mënoo liggéey heure bi wala jigéen nga dafa faible attanoo liggéey bi loolu yëpp mu ngi duggaat rek ci quinze mille habitants par par officine jigéen ñi donc discrimination la ñuy subir ci biir secteur bi ñu si bari parce que yi dañuy préférer ça alors. mais bien sûr ah man gis naa ay pharmaciens yoo xam dañuy wax ak man bay jooy man gis naa ko. Ah ak géejawaay docteur <laughs> docteur yi nañ may dégg xam nañ ko. comprendre mais c'est terrible ñu ñëpp c'est nous sommes des pharmaciens nañu bàyyi ku nekk mu def li mu bëgg a def jigéen la am na xam-xam bàyyi ko mu exercer bàyyi ko mu exercer su dee loolu la bëgg. te en pharmacie dafa nekk loo xam gis nga léegi dañuy xaw a génn tuuti secteur bi dem feneen moom mooy naturellement nit mooy loo xam ni boo ko teree dara rek da koy bëgg a def gars yi bi ñu ñëwee ba jéem a tëj secteur officine rek la problème tàmbale mais boo bàyyee nit ñi ñëpp officine intéressé wu leen mais boo tëjee officine ñëpp seen xel dafay dem foofu nee naa la bëri na si officine ñoo xam ne ñoo xam ne bugguñu ko du seen objectif. Mhm. mais jaar-jaar lay doon pour am dara dem. mais boo fa jaaree créer benn kii après nga jéggi keneen ñëw fa yow soo jéggee da ngay dem fu gën a kawe fan ngay dem gars yi ils tendent il ils vont tendre vers ay industrie pharmaceutique mais mille cent et quelques pharmacie sérieusement industrie pharmaceutique munu ko mais soxlawu ko soxlawu ko déedéet du tout te industrie pharmaceutique xanaa du defar pharmacie du defar euh, ay garabam ba pare di ko jox euh, ñoo xam duñu ay pharmacien déedéet mm. il faut que pharmacie yi nekk fii besoin bi jaar fi mu war a jaar ba ñu xam ne besoin baa ngi fi maanaam bàyyi ay pharmaciens ñu occuper li ñu war a occuper. Mhm. après ay pharmaciens seen bopp ñooy toog xalaat exemple bu ñu demoon ba saturation am naturellement. Mhm. nit ñi ñooy xamal seen bopp ni vraiment secteur pharmacie moom nañ bàyyi mu sedd ñu xool beneen yoon bu ñuy jaaree pour di ko. exemple soo demee dans les pays comme France ak yooyu. Mhm. assistant collaborateur lay nekk day am pourcentage muy liggéeyee maanaam dafay am action. mais fii employé ngay doon boo xam ne su leen neexee ni la sax yëkkatil ma siège bi teg defal ma ni defal mais effectivement alors que en France noonu la ñuy liggéey saa à dire da ngay nekk actionnaire le jeune pharmacien. Mm-hmm. ak euh, ak son titulaire dafa am benn relation boo xam ni ñun sax Sénégal moo tax man la administrativement suñu suñu si yëpp baax na. loolu prévoir nañ ko maanaam un jeune pharmacien pa euh, mën na euh, lëkkaloo ak mm-hmm. ancien pharmacien titulaire ñuy liggéey avec le temps mu koy bàyyi ay action jusqu'à ce que moom pharmacien bi bu demee ba egg benn âge bi mais mu bàyyi ko kooku continuer kooku tam jëlaat keneen mais fii moom vraiment da ngay gis pharmaciens yi dañuy liggéeyal liggéeyal liggéey donc en parenthèse dañuy liggéeyloo ay nit liggéeyloo ay nit liggéeyloo ay nit jusqu'à doo xam kañ léegi jeune bi en ce même moment mu ngi toog am problème am donc vraiment c'est terrible kii bi par rapport ak discrimination jigéen ñi effectivement mhm. docteur Carrère souligné na ko à maintes seen pharmacie installé bu mais c'est ça que jël ay li ñuy def pare nañ ko mën nañ pare nañ ko mën nañ ko aussi mhm. léegi benn mbir bi nga xam moo ci nekk moom mooy tey ji on a parlé sànq de marché parallèle de faux médicaments de médicaments yoo xamante ne baaxul ci wér-gu-yaramu askan bi mais médicaments yooyu tey ji su fekkoonte ne tey ji euh, pharmacie yi pharmacie yi am nañ ci quantité bi ñu war a am nit ñi am assez d'éducation sanitaire mais du ñu xalaat cest à ki nga xamante ne moom mooy trafiquant bi du xalaat dana xam ne fii le besoin est déjà satisfait satisfait c'est ça mais lu fait que tey jii ñuy ñuy saisir ay milliards de médicaments en faux de loolu c'est une preuve inévidente que dafa am gap. dafa ngeen baal ma nag ci exemple bi waaye malgré que milliards de yooyu nga xamante ne mi ngi dugg ci dëkk bi am na ay dëkk yoo xamante ne médi faux ñoom yi ñoom mosuñ koo gis. suñ ko gisoon jënd ko. ah je sais. ci biir réew ah, mais ah, gisuñ ko presque sama ñooñu duñ ko gis. Sylvie je donne je suis bari na ma joxe benn exemple. waaw man ak docteur Saliou mii barki démb képp matul weer. fan lañ demoon dem nañ ñàgg waa si benn pharmacie moo fa am dem nañ Tivaouane Pël benn pharmacie moo am Tivaouane Pël village da ngay dox ñun dañoo dox jour bu préféré pour xool distance yi da ngay jóge Tivaouane Pël village di dox ba Namora jóge Namora dox ba soo a bekk ay milliers de personnes ñoo fa nekk benn pharmacie moo fa nekk dañ koy rang benn pharmacie fii dakaar loolu du du feneen de Dakar Mbambilor bi mu amee pharmacie deuxième pharmacie am dépôt 2017 la. si je me trompe parce que 2017 man déposé woon naa. 2017 la am deuxième pharmacie Bambilor bi ngay dégg ak ni mu toll. fii Dakar te pourtant dégg naa la dernière fois am ko wax ni amul fenn fii Sénégal foo xam ne tu tu peux faire une distance te doo gis ah, officine mais mais fii à Dakar. man j'habite quelque part à Kër Massar foofu noonu. mais pharmacie yaa ngi fay tijji te ba léegi dañoo soxla pharmacie. Mhm. ba léegi dañ ko soxla comme comme pas possible nit ñi da gis yenn saa yi ma romb kenn mu docteur fii mais su ma xoolee distance bi muy jógee pour ñëw. mais c'est terrible mais sa bopp suy metti guddi nag mais su la dara mettee guddi gi nag mais pharmacie li ñu war a bàyyi xel c'est que souvent euh, xaw ma état la xaw ma kan la mais li ñu war a bàyyi xel mooy pharmacie ak lu ak lu mu nekk entreprise nekk entreprise ñu war a xool rentabilité am et tout mais li tax li ko njëkk a tax a jug mooy nit muy nit mhm. te doomu aadama benn rek ndawul mhm. benn doomu aadama yàlla rek dafay wax ni képp ku ko dundalal benn doomu aadama dafa mel ni dundal nga ko ñëpp ko rayal kenn itam noonu la ciy mere Mhm. voilà. 2018 euh, ba nga ne mu mel ni amul tijjiwuñu pharmacie Sénégal. Sylvie ma bëggoon mhm. peut-être message bu ngeen di lancer au ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. waaw donc effectivement 2018 maag sama waa ji itam déposé woon nañ. Euh, déposé woon nañ 2018 ba léegi vraiment amuñu benn dépo de pharmacie boo xam ne am na dinañ taafantoo nag euh, li nga xam ni moom mooy Covid mais waay waay Covid. Covid daa waroon accélérer mbir yi. parce que Covid dafa nekk feebar boo xam ne sax nit ki dafay soxla prise en charge bu gaaw. Covid dafa nekk feebar boo xam nit ki sax dafay soxla ay vitamines yoo xam ne souvent da koy naan pour mu dëgëral. renforcer système immunitaire yow Covid ñëw nga war a renforcer sa système de santé nga nga gàllankoor ko mais c'est terrible loolu dafa doy waar 2018 ba tey benn PEP pharmacie tijjiwul fii biir Sénégal donc sous ce rapport ñun waa Codifarm. Mm-hmm. au nom de la euh, du Codifarm. Euh, ñu ngi lancé appel ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. bu jaree sax son excellence monsieur euh, maître euh, monsieur Macky Sall l'ouverture sans délai des dépôts euh, des des des pharmacies pour les pharmaciens désireux loolu benn la. Mhm. ñaareel ba l'application effective du décret 2007 1457 du 3 décembre 2007 qui autorise la création d'une officine de pharmacie pour toute population de 5000 habitants. Mm -hmm. mais aussi ñu ngi wax ni. bëgg nañ la suppression de la commission d'étude de dossier mise en place par le ministre de la santé de façon illégale parce que dara notifié ko ah nekkul ci décret bi loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy demandé. ah dossier yi kenn du ko càmbar ba xoolam de. mën nañ ko càmbar mais commission boobu liggéeyam dafa jéggi loolu. Hmm. commission bi moom moo ñëw taxaw. place exemple yow pharmacien nga war a dem def sa prospection bopp moom mu ni moom moo koy def mooy xool fan moo war a am na sax fa nekk du pharmacien. muy xool fii yow pharmacie mën nga fi nekk wala mënoo fi nekk ak yeneen ak yeneen ñoom aussi ñoom ñoo mettre en place li nga xam ne mooy loo euh, règle d'ancienneté boobu. voilà règle d'ancienneté boobu amul si décret bi. déedéet 2007 ba léegi pharmaciens yi tijji yëpp. nga xam ni jeune pharmacien yi nga xam ni euh, subir nañ discrimination boobu maanaam déposé fenn ñu xañ la ko jox ko keneen yëpp. Mm-hmm. commission bi moo leen ko teg ci nan ci moom moom commission bi moo fi teg euh, moo fi teg maanaam système boobu système mu ancienneté nga xam ni amul. maanaam ñaari système lañ teg dañ ni soo déposé amoo am nga un point at boo toog euh, te ubbeegoo am nga trois points muy quatre points ñu koy continuer di ko continuer jusqu'à dix ans noonu lañ ko defee bu ko defee compétition bu metti boo xam ne ah, entre entre pharmacien mais c'est terrible foofu nga baal ma ma sànni fa dafa mel ni foofu échec dañ koy récompenser waaw échec maanaam boo boo boo concourir amoo ñu dama dañ lay gërëm jox la benn point am nga benn point imagine toi léegi loolu nu doyee waar juste pour wax ne commission bi dafa illégal baaxul warta am parce que benn texte prévoir ko moo tax ñuy demander à ce que ñu supprimer ko c'est c'est c'est un bloc c'est-à-dire la tey jii à ce que nit ñi mën a jot médicament yi moo tax ñuy demander à ce que ñu supprimer commission boobu baaxut waaye indi critères yu gën a bonati critères yoo xam dafa mel ni lu waroon a yomb tey jii nga jafeel ko nga boo ko boolee loolu yëpp moom mooy ils sont cette commission ak seeni critères ils son dans l'illégalité c'est-à-dire ko bi ay nit a toog rek seen xalaat yi bopp daal di wax ne nañ ko teg mel na dañoo bëgg tey ji waxoon naa ko benn directeur de la pharmacie benn kii mag bu ñu woon mhm. benn ndaje mag bu ñu woon mën na ko yéen tey ji fekk ñu ngi doon waxaale sax si faux médicament yi mën na ko faux médicament yi ñu ngi fi certes état bi am na ay difficulté su fekkee mën naa ko tuddi noonu pour xeex ko tey ji ñu ngi wax kër sëñ bi ñu médicaments yi fi ñu gën a bay at yu mujj yi fa la insuffisance rénale gën a bari. mais c'est ça. ndax garab du caagane lam lay faj waaye bu la fajee ba noppi fan lay jaar itam ba du la lor. Mm. te loolu pharmacien mooy garanti loolu. nga may ko mu yeggali. ok donc Sylvie. ñun waa Codifarm loolu la ñu wax maanaam ñu ubbil ñu site yi sans délai ku bëgg a tijji tijji te mu dëppook nag yoon bi nga xam ne moom la décret bi mooy benn. ñaareel ba mooy ñu appliquer décret 2007 1457 du 3 décembre 2007 supprimer commission bi. mais aussi bàyyi pharmacien bu nekk mu prospecte fi mu bëgg a tijji mu tijji fa loolu mooy ñeent mais juróomeel bi te te mu am solo lool Sylvie moom mooy il paraît que dégg nañ ci weewu béy ni am na projet de décret boo xam ni moom lañ bëgg a mettre en place pour légaliser lii nga xam ni ñun wax nañu c'est illégal muy commission beeg yooyu nekk ci biir projet de décret boobu lan mooy kiiwam ci liñ gisagum li nga xam ne moom lañ présenté projet de décret boobu buñ ko tegee au lieu de cinq mille habitants dix mille habitants lañ koy def loolu c'est un problème benn catastrophe ñaareel ba ñaareel ba au lieu de <laughs> euh, au lieu de cinq mille habitants lañ koy def loolu benn la beneen bi aussi euh, moom mooy ñu koy waxee dix mille habitants waaw. dix mille habitants voilà. waaw kii wal dina dinaa ko gis. bon li ma ci déggaat nii ci seen jàngat yi mooy euh, pharmacie rey pharmacie rek laa fi dégg ñoom seen histoire ñoomu neen la. muy ñu mag ñi ñooy rey ñu ndaw ñi la dof ba waxoon dof bi oto yi dañ ko romb oto état bi rafet loolu rëy mu ne ñii ñu mu doon ñu ne ko waa état bi mu ne waa kaw gaa ngi rey waa suuf gi euh, ñoom it loolu laa fi dégg rek muy euh, pharmacie yi ñooy rey pharmacie yi ñu mag ñi leen ci jiitu ñooy bañ ñu ñu ndaw ñi yéeg fekk si leen euh, beneen bi ci des it li ma ci jànge mooy sànq nee na docteur kii pharmacie du rey kenn waaw baax na pour ñu défendre ci système bi ñu nekk c'est important mais ki la ki nga ñëw di jënd si mu jaawale garab bi jox la boo dee moo la rey ki nga ñëw it mu topp kiliyaan yu bari yi ba explication yi leerul boo naanee faatu moo la rey bu yàlla weesoo. beneen bi ci des tamit mooy fii Sénégal la benn nit mun na am benn pharmacien noo man gis naa benn nit boo xam ne góob ma ni sax métier pharmacien diplôme yi ngeen am sax góob ma ni am na ko mën na ma tudd turam ci micro bi. li ma am ci pharmacie ci réew mi déet <laughs> sama xarit la li ma am ci pharmacie ci réew mii kenn xamul nu mu toll. Ah. <laughs> waaw non mën na ko doon sax mais métier mi. Ah, mokkul doy waar la mën naa am mi fa mu war a jaar dëgg-dëgg ba mu nooy nooyul mais boromi pexe la te mi réewum pexe la ay pexe fii dox. Ah, beneen c'est grave waaw beneen beneen réewum pexe Sénégal lañ nekk. Mm. beneen bi ci des mi ngi naan loi bi euh, ni mu ni mu tënkee mbirum pharmacie normal la ñu ngi koy tàgg mais Sénégal dañu ay loolu ci defar kayit bu baax. waaw mais application bi mooy des. moo tax duñ ko demander l'application. voilà dañ ko dul dañ ci dul dañ ci dul dem ba ci ba ci yàq bi beneen bi ci des mooy Sylvie pharmacie ñu ngi ci càppandawu émission bi pharmacie yi ci ëpp duñu ci ji dimanche ndax nit ñi seen feebar am na bis. beneen voilà beneen bi ci des pharmacie yi ñi ci ëpp dañoo am heure yu ñuy tëj te pourtant boo waxee ñu ne médecin bi 24 heures sur 24 dafa war a liggéey te pourtant li concerne médecin bi. concerné ki feebar moo war a concerné pharmacie bi des fois da xëy ŋàbb sa ordonnance boo xam dañu la ko bindal samedi ci guddi nga xëy dugg dakaar ci banlieue bi di wër ba lënd rek ngay jëndaat ndax ki nga xam ni ordonnance daf ko war a naan immédiatement kooku kooku mën na xaar voilà kon kon kon problème bi mooy waaw kon problème bi mooy dëgg la ministre bi am na problème de ci niñ ko waxee ne ministre bi moo war a réglementé lii moo war a def waaye yéen tamit kenn ëpp leen problème boole leen daje waxante dëgg te tegu ci norme te wàññi tamit yaradiku gi xoolal da ngay gis benn benn pharmacie boo xam ne baal bi yëpp benn pharmacie kese moo fi nekk boo ñëwee danaan la garab bi nangam lay jar boo mënee jëndal boo mënul nga dem soo demee foo jëm xam nga lu tax moom rek xamadi waa mooy xamadi gi xamadi gi yëpp li ko waral mooy moom doo nga fa nekk léegi nag bu ñu leen xeexlee ba ngeen am ay pharmacie yéen jeunes yi da a xamadi mel ni ñi fi sampoon seen pharmacie ndax bari na pharmacie yoo xam ne dañoo xamadi xamadi mënul passé a liggéey a noppalu <laughs> te nit ñi moom amuñu bisu feebar ñu jox lañ léegi ma sànni ci sànni benn baat rek par rapport sëñ Amar li sëñ ci Modou li mu wax am na solo <laughs> ndax tous les cas li ma ciy waxaal rek moom mooy tey jii dañoo soxla képp koo xam ne dangaa dugg pharmacie nga xam kan mooy pharmacien ak kan mooy jàppale pharmacien parce que mën nga faa gis yenn comportement yi mbaa nga dégg fa comportement certes ci responsabilité pharmacien bi la jëm waaye est-ce que kooku pharmacien la est que loolu aussi benn sew sew la parce que am na parce que pour pour nekk pharmacien il faut présenter des valeurs de bonne moralité. Mhm. am na jikko yoo xamante ne da ko war a am. te mhm. loolu benn biir la lu ne ci ci gétt la. <laughs> léegi mën naa am ne kii xaar la maanaam je ne sais pas mais dans tous les cas léegi man bi si yokk moom mhm. koy organiser. c'est ordre des pharmaciens moom mooy organiser garde yi soit par weekend lay nekk wala su fekkee jour férié la wala yeneen jour lay doon léegi nag respect bi nga xam war nañu ko respecté garde yooyu ak heure d'ouverture yi am na pharmacie aussi 24 heures la ñuy def zone bu nekk am na pharmacie def 24 heures loolu aussi ñu yombal ko pour nit ñi mën koo xam bu ko defee mu mën a yombal nañu jot garab yi waaye loolu aussi am na ok c'est à régler waaw déficit bi donc fi nga daanelee yëpp euh, nekk fa moom képp mu xam ni su la jaayut doo jënd ba tax mu doxalee nam doxaleeg yëpp dafa dugg rek ci la war a am foofu ci pharmacie moo fa amut maanaam concurrence loyal moo am ak concurrence déloyale mais ñun concurrence bi ñu tegal c'est pas loyale concurrence loyal mooy nga bàyyi ku nekk fi mu war a nekk mu nekk fa waaye la mu am moo koy fàggul boppam ci nan ci mm-hmm. service de service de qualité bi muy joxe su dee fi mu war a nekk 400 mètres nga dem gis beneen 400 mètres nga gis beneen ku liggéey gis ko ku liggéeyul doo ko gis mm-hmm. c'est simple loolu loolu benn la ñaareel ba <laughs> maa ngi koy xaw a fàtte mooy li nga doon wax sànq euh, Euh, lan ci. garde yi garde yi wala wala wala samedi wala heure heure de wàcc yi. waaw bu dee métit ok mooy métit bi nga xam mooy cest à comportement bi nga xam moom lañuy ñuy liggéey ci pharmacie yi souvent di am. gis nga pharmacien bi ci boppam docteur bi du doxalee noonu. waaw parce que wax naa la ko sànq dañu am déontologie docteur du doxalee noonu mukk benn. mais souvent moom mooy doxalee noonu xam lu tax indirectement maanaam boo fayul sa assistant li nga war a fay ba xolam féex. assistant yi fii demal pharmacie yëpp. 15 euh, le 15 weer bi bu paasee. mais xol bi mënul mënul normal mu ngi gis xaalis biy dugg xam na parce que nekkul dañuy liggéey noonu rek ñun xam nañ li ñuy liggéey lu mu doon. Mm-hmm. xam na moom cest à nit la yàlla bindee naturellement dafa am yoo xam da koy yëg di ko xam xam na li mu war a am. amu ko nga tënk ko rek. voilà donc comportement boobu nga xam ni c'est-à-dire traitement boobu nga xam ñu ngi koy daj moom assistant bi ak ñi nga xam ñoom ñooy ñi fa nekk di liggéey di ko jàppale muy euh, agent de comptoir yeeg ni nga xam noonu lañ leen traité souvent ñoom duñu am fuñ ko sànni buñ gisee mën nga fekk euh, pharmacien bi titulaire bi daal gëdd wala mu yuuxu wala mu doxalee noo xam war ko doxalee ci kenn ci ñoom client bi daal di ñëw bi client bi ñëwee rek kii tam moom daal di daal di défoulé wu fekk sax tayu ko en réalité pourtant souvent nit ku baax lay doon mais liggéey bi moo doy waar li ko waral yépp mooy non application du décret 2007 tàggatoo leen ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu ngi leen sant leen gërëm wax dëgg yàlla ci émission bi parce que jàpp naa ne waxtaane wér-gu-yaram moom néew na lu ko ëpp solo ci askan hmm. waaye pour daaneel ñi ngi lancé un appel solennel euh, son excellence monsieur président de la République Macky Sall jaarale ko ci ministère de la santé Abdoulaye Diouf Sarr waaye ñu ngi koy président ba léegi la ñuy renouveler suñu appel à que euh, disposition réglementaire yi nga xam ñoo fi nekk muy arrêté 2007 bi 1457 du 3 décembre nga xamante ne moom moo permettre 5000 habitants fu ñu am pour wér-gu-yaramu askan bi. Mhm. pour que nit ñi mën a jot garab yu baax ñu appliquer ko. permettre ay centaines et des centaines de pharmaciens tey jii ñu mën a créer ay emplois président mi ngi woote. Euh, promotion de l' des jeunes. des jeunes sont là bien formés. voilà effectivement donc ñu ngi leen di jaajëfal yéen bu baax a baax a baax. parce que lépp lu fi juddu ci njëriñ rek da ngeen ci am yiw kër gi dana ci am yiw loolu am solo la. si mhm. euh, développement la mais damay jëlee fi Saliou kiiwee rek daanelee foofu moom mooy ñu ngi Euh, monsieur le président nga xam ni moom emploi des jeunes moo ko yitteel ñu koy wax ni ko benn niche demploi mu ngi nii boo xam ni laajul xaalis laajul formation parce que ils sont déjà formés et compétents mm-hmm. si compétents que yeneen dëkk yi sax ñu ngi leen di jël di leen yóbbu di leen di leen utiliser te di si gis seen bopp Sénégal gën ko soxla kon na bàyyi ñooñu na permettre ñooñu ñu mën a exercer benn donc loolu emploi la ñuy jur mais indirectement tam ñu jël yeneen i nit ak yeneen i famille ñu mën a ñëw donc daal di nekk ñoo xam ne dinañ mën a dimbali seen bopp dimbali askan bi donc emploi la voilà c'est ça merci euh, may gërëm Modou <laughs> pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique docteur Thiemokho Diouf toogal leen fi ak docteur Saliou Diouf Modou Fall maa ngi lay gërëm di gërëm aadama ci technique bi euh, Babacar Ndiaye mi ngi ñëw rek rek euh, jukki leen xibaar man maa leen di jëkk euh, jox dig daje mercredi bi di ñëw même heure même fréquence beneen thème ak yeneen invité